ngeen jot suñu voilà donc ñun dañ nekkoon ci biir kër gi xale daw génn si biti di fooy ndekete lu ñu doon fooy noon dañ ko ramassé grenade la boo xamante ne wul mais bu ñu nekkee ci biir ñu jëkki jékki yi dëgg benn ku pour ñoon déjà xam nga euh, ondatuni ñoo ñëwaat ñoom ak jeunes mais c'est trouvé ndekete ci xale yi ñoo ko foroon mu explosé seen loxo mu nekk lu doy waar gaañ leen gaañ gaañ bu métti boo xamante ne vraiment quartier bi ñëpp génn si la ñu daw si gis xale yi ñu ngi tëdd seen yaram yëpp deret ñu daw indi leen fi hôpital régional ñaari ñu ngi foofu ñu téye parce que seen yaram yëpp ay dagg-dagg la ñeneen yi seen loxo yi dañu toj yeneen ñaari ñu ngi fii ñu daw si indi leen hôpital de la paix pour vraiment ñu defal leen rajo mu doon li nga xam ne métti na est-ce que euh, ragaloo leen pour ñi nga xam ne euh, métti na si ñoom. waaw vraiment ñi ñi daal man maa ngi ñaan ñëpp appel la quoi ku nekk na nga téye sa doom ci biir kër yi surtout xale yu ndaw yi parce que lu ñuy for ñoom duñ ko xam. donc mun na am tamit comme situation bi mu ngi gën a compliqué mu nekk loo xamante ne vraiment Ziguinchor ñëpp si jóg Sénégal ñëpp di ci jóg nañu bàyyi xel ci xale lu ñuy for di ko dugal ci biir kër gi donc ça peut se répéter kenn ñaanu ko mais vraiment nañu bàyyi xel parce que xale lu ñu for bu ñu si bàyyi teel koo gis rek peut-être lii du du am quoi vraiment maa ngi ñaan ñëpp koo xamante ne vraiment am nga njaboot nga bàyyi xel ci xale yi ci biti a jot moo leen vidéo boo mën a xam li nga xam ne